bon bon du bon moment moom fii dañ ko que fii dañ koy bàyyi pourquoi pas s'il ah. demande pardon parce que Ousmane Sonko ñi war a bol de février il doit demander pardon à beaucoup de personnes war jéggul wala Sonko non pour la presse bi di jéggul lan la ko presse bi def presse bi impôt, yore à lulu Sénégal tout le monde représente le Sénégal ça c'est normal que la presse amène ku mu mënti donne il faut hmm. qu'on soit sérieux boo ko koy amee li fi am fayal <laughs> d'accord fayal mais ñi duñu doon fay booy parce que ñofi am ñu xamanteni ba fa mel ñom habité wuñ fay bor dama ne la comme que habité wuñ ñoo fay bor habité wuñ ko waaw comme que fay habité wuñ fay bor ah. té légui ñom ñew nañ d'accord jomay ñew na té jomay franchement loo mënti waxit hmm. bi muy ut réew mi wax na ko bi mi hmm. réew mi néna je suis pas d'accord ak li ñu wara may euh ki bi ñu wara may euh presse bi alors que c'était 40 40 euh, milliards de francs la ñu wax 30 oui, ouais, 33 millions, c'est la RTS, euh, euh, le truc de l'État là, Nyom, nyom, nyom, nyom comment APS, Comme, euh, le soleil, la peste. Voilà, comme ñoom déjà ñi l'Inti ci amel bëriwul. Hmm. je pense que nañ leen ko le moratoire nañ waxtaan bu un mais pour acharnement bi c'est un acharnement au fait. mais parce que boo que patron de presse di bëgg a les leçon de morale te doo fay impôt. Bah, Yo, yëpp on est d'accord oui on est d'accord tu dois nga war a de mu tudd détournement deniers publics Ousmane Sonko.

parce que Macky Sall doon baye mu jall mais Sonko ne déedéet do len baye mu jall wa xam nga aussi dañ ko wara jox ci respecter ko mais bu ne day respecter bopam ba pare man dama lay respecter nga ma jox la cër bo mo nek li jox attanoo ko dama koy nangu. Hmm. te Ousmane Sonko cër boo ko joxee dama koy nangu parce que attanu ko attanu cër a ah, Ousmane mo attanu nga jox ko cër. Hmm. nga jox ko cër mom la attanut mais da ngay respecter nit ñi ñu mëna respecter bu génné di xass ay maison de presse mais loolu du ciiram té ku ko xass mu meer. Hmm. loolu du cëram na doxal dañ koo def premier ministre ki ko def premier ministre nag tooñ nañu parce que xam nañ ne atanu ko ah ay mag dañoo am ñaari ñoo xam ne attanuñu dara le président de la république Diomaye attanut yére bi ñu ko jox veste bi dafa ëpp ci moom oh. Ousmane Sonko t-shirt bi ñu ko solal baat ba day lang war nañ wax tailleur xam nga yaa tailleur amul tailleur ñoom seen i bopp lañ ah seen tailleur bopp la de seen tailleur bopp lañ Je pense qu'avec le temps, Dioma, il va se réveiller parce que Tuki, il va dans l'international, il rencontre des présidents, il rencontre des ministres, des premiers ministres. Et je pense que. demee ci CEDEAO dem ci yeneen président da ngay gis ne da ngay gis ne day sañ si osé di def excellent discours excellent discours non non waaw mais tubayam boobu tubayam boobu il faut que ñuy wàññi tànk tu tubay bi non le président il doit être vraiment vraiment correct quoi ah oui pantalon bi moom tubay ja moom dafa ëpp ba lemu waat. dafa ëpp loolu tailleur ah, bi la pour tailleur bi la woon. non tax non mën na am sax prêt à porter. mais ah, tailleur bi la daal. xam na sama mbokku séeréer yi moom. waay tailleur bi la de tailleur bi la. suñu mbokku séeréer yi daal c'est tailleur bi la. suñu mbokku séeréer yi xaw ma lu ma war a def. buñ ko may ko may buñ ko mayee un an rek fu ñu toll dana mën a. sañ rafet non non mais mais jabaram yi tamit war nañ koy xool. waaw ah. veste mais mais mais bugaan nag bugaan nag saagu saagu saagu euh, première dame bi xaw ma première xaw ma deuxième xam nga ñoom ñaari soxna ñu am Sonko ñaar jomaay ñaar xaw ma kan ma ci première. non Sonko est-ce que nekkul ci ñett dafa ça coûte vraiment vraiment cher vraiment cher je pense que vous avez nit ñi di ci wax. du 000. trente ah non non non non non. non première dame yore du saagu trente non non ça, franchement c'est une vidéo yi et on la comprend c'est une première dame. elle doit ah se porter normal non. elle doit porter euh, voilà elle elle doit s'habiller classe. mais là xam nga lu indi wax <laughs> parce que nous, on ne woon bu ñu ñëwee réduire le train de vie de l'État. Ah, et on hein. voit non non on voit que ils sont pas en train de réduire le train de vie de l'État. on parle de de de de non dàqe non dàqe dakh da ngay c'est ça le problème en fait da ngay dakh 100 jël 200 hmm da ngay dakh 100 jël 200 ah, lolu kon du wañi ah, ba ah. paré bo déjà ministère bi ngay yok rek déjà am waxna la ko sank bi ñu y xaliss la bo ministère nak non bo bolé bi ministère da ngay ay ay directeur té hmm. ministère à mon sens ministre de la culture dafa wara bureau culture du fort sport jeunesse non culture dafa war am ministère am à part. loolu man bu ñu ko waxoon amul ko defoon amul luma la ci duma ma ci ngagne on parle de la culture. d'accord culture c'est pas quelque chose bo xamné ni le non non c'est culture c'est c'est c'est autre chose c'est beaucoup de choses. Hmm. il faut que ñu utal ko ministère bopam boppam. bu ko waxoon ñun on est preneur on est d'accord mais tu peux pas dire que tu réduis le train de vie de l'État et tous les directeurs que Macky Sall mom la fi bàyyi son excellence le président Macky Sall tu as toujours ces directions là tek nga fa say nitu bop mais c'est normal, non Voilà. Mais attends, ce qui n'est pas normal, réduire le train de, vie, de, de, le train de vie de l'État, ça signifie que direction hybride encore une ko Tu as dindi. Hmm. tey yaa biir palais ñi ngi def ay emplois yoo xam li nga les chargés de mission les ministres conseillers oh, j'ai vu la, nomination de Adjuma Sow. Ah, ah, Adjuma oui. koy féliciter il le hmm. mérite. il le mérite bien vrai que encore une fois. on doit on <laughs> doit on doit non ko dal la nit ko dal do question lu mu sante saw kenn de mi ngi sa mbokk la parce que dafa ah, sante saw c'est normal c'est pas parce que ça non c'est même pas ça hmm. mais dama gis gëm gi mu gëmoon euh, projet bi pas le projet mais liggéey voilà euh, ku ku daloon la ku tay la hmm. kenn déggu ko ci dara ken déggu ko ci detail nit ñi sax geñon nañ ko gis kon je pense que Adjuma c'est quelqu'un vraiment qui mérite euh, poste parce que il avait nomination yi mën nañu wax nday